amis téléspectateurs D'aller dalee nag jàmm ci un euh, spécial entretien invité de la rédaction aujourd'hui on a le plaisir d'aller Hassan Gueye Hassan Gueye un entrepreneur de Thiès mais également euh, di yëngu ci wàllu politique bu ñu politique nag euh, moom mooy mouvement vertu vertu mu teg ko nag ci benn triptyque bu ñuy wax dooleel doomu dëkk bi muy 3D dinañ ci waxtaan lu yaatoo yaatu umpale woon ni ñu ngi ci wàllu kon li nga xam ne mooy campagne bi war a démarrer Euh, ñu war cee euh, waxtaan mais également li nga xam ne jaar na ci dëkk bi ci wàllu politique dinañ ci waxtaan bu baax a baax mais li nga xamante ne euh, moo sabab waxtaan bi tey ñu war a toog ak moom bokk na ci le mouvement vertu ndaxte vertu tour la boo xamante ne néew na ñu gis ñu tuddee ko mouvement lan moo waral mu tànn tur boobu tuddee ko mouvement bi loolu lañ ci yaatal bu baax a baax mais laataa ñu dem ci faram-fàccee dañ koy bàyyi mu nuyoog yéen alors Assane asalaamaaleykum. waaleykum bu baax euh, sunu mbokku téléspectateurs yi. yam mhm. am bu baax dalal leen fi tey. ci mhm. seen émission entretien. Mhm. bëgg waxtaanee la vie politique ici a Thiès et au Sénégal. waxtaanee aussi sunu mouvement bi comme ni nga ko waxee dañu ko sos bu yàggul. waxtaanee aussi sunu ay activité en général daal à Thiès am nañ daal en tout cas am nañ mbégte bu baax dalal leen Mhm. alors merci beaucoup également ci cadre bi nga xamné fi nga ñu dalal euh, mu nekk un plaisir ñu togg ak yow comme ni ko waxé mais on va plonger directement dans le vif du sujet vertu euh, nga tuddee mouvement bi pourquoi cette appellation là da ko basé aussi si triptyque bi ñu wax dooleel doomu dëkk bi mhm. euh, D'abord, tout le mouvement bi vertu fan la jógee. waaw vertu c'est d'abord concept la boo xam ne li tax ñu ñu am ci benn dafa nekk dafa nekk ci ay valeurs yoo xam ne dafa commencé rare mhm. surtout dans le monde politique mhm. jeunesse bi aussi perdre ay repères mhm. ñu jàpp ni euh, ñàkk loolu yëpp ci cadre vertu la bu commencé réer donc ñun aussi ñu nekk ay républicain naturel donc jël suñu gis-gis aussi teg ko ci cadre boo xamante ne certes on est des idéalistes mais des républicains boo ne li ñu bëgg andana na na ak lolu te du tax aussi ñun ñu mëna perdre suñu ay vertu perdre suñu ay valeur mm-hmm. mëna agrat mo tax ñu choisir no bok mais vertu mo ngi tekki une vision et un engagement républicain pour un Thiès uni parce que lolu tam dañu japp ni lu ñak la ci dëkk bi parce que Thiès bari na ay yëngu-yëngu politique bari na ay responsable politique mm-hmm. mais li politique di jariñ Thiès gis nañu bariwul donc concept bi dañ ko war revoir mm-hmm. parce que c'est une une pluralité. Mhm. dans la diversité. Mhm. mais dans l'animosité lañ ci mhm. une opposition très farouche on a ici à Thiès beaucoup de valeurs sur yoo on a apporté apporter quelque chose à Thiès. mais c'est un ak un xëccoo ak façon de faire de manière malsaine. mon indi Thiès tey ñu monde au second plan en matière politique alors qu'il y a des valeurs et des. des des responsables yoo xam ne mën nañu apporter beaucoup beaucoup mm. la ville de Thiès. Mm. en général et le Sénégal en général et le Sénégal. Mm. alors moom gis daal moo tax ñu ñu teg concept boobu. tout à fait mu mel ni euh, bu ñu la déggee yéen ngi wax ci wàllu li nga xam mooy repère yéen a ngi wax ci wàllu li nga xamante ne mooy euh, comportement ak ni mel. mais euh, bu ñu xoolee li nga xamante ne moom ngeen teg comme slogan dooleel doomu dëkk bi. ndax day jàpp ni day wund ni doomu dëkk bi dañ leen joxul seen i seen dayo waaw donc parce que dañuy gis à chaque fois parce que euh, mouvement bi. Hmm. du mouvement mouvement national. mouvement bi ils vont se limiter ici à ah, Thiès. parce que dimension waa amaguñu ora boobu amaguñu aussi ses partenaires. mais aussi. Hmm. concept bi ñu dañ ko bëgg ici à Thiès. pour aussi Thiès parce que mouvement Thiès Thiès mais pour Thiès. tout à fait. donc loolu mooy loolu mooy li ko tax a jug d' abord. Mhm. ñi ñu ci àndal aussi. Mhm. du ñeneen ñu ay ay mouvement ak ay association ak mhm. groupement de femmes yoo xam ne ñu ngi nekk autour de nous. mu nekk loo xamante ne dañ ko tegoon ñu d' abord pour di ànd ak ñoom di liggéey. dans le social et dans de la la citoyenneté. donc beneen li nga xamante ne aussi ay action politique yi nga xamante que ñun dafa amoon ci ay ay ay ay entité politique yu ñu bokkoon. donc doon fa ànd ak ñoom ñooñu lañ ci bëgg a liggéey. donc li tax aussi ñu taal triptyque boobu dooleel doomu dëkk bi mhm. dañu bëgg a yemale suñu force fii te dañu gis que ni Thiès mhm. même ci récente échéance électorale yi ngi ñu gis fii mhm. dañuy dem ba néewal doole doomu dëkk bi te li koy indi yëpp mooy xeex boobu ma lay wan mooy xëccoo boobu ma lay wax perdre ci ay perdre ci ay valeur perdre ci ay personnalité perdre ci ay repère des personnes yoo xamante ne buñ leen dajale woon day Mhm. Thiès mën na ci boni bonifié wu donc loolu moo taxoon dañ ko teg parce que mhm. li ma jàpp man li ma jàpp mooy que li doomu Thiès ak fépp fu mu mënti nekk mhm. di liggéey additif la war a doon tout donc ak keneen li mu def mais warul jur une rivalité bi ñuy gis ni tey bu ñaaw bu ñuy gis nii tey mode bi nga xam ne moom la gaa yi defee politique tey boobu gisuñu ko parce que mën kii mën na nekk Mm. un républicain. kii nekk un nekk un libéral kii mm. nekk un patriote kii nekk feneen ak feneen. Mm. mais ñoom ñëpp di tirer pour Thiès. donc dama jàpp ni loolu. yu ñu war a synergie la war a doon. absolument la war a doon. benn benn benn ensemble la war a créer boo xamante ne kese moo ci bénéfice. donc moo tax ñu jàpp que Thiès waa fépp mu mënti ne activité bu mu mënti nekk. war nañ ko mën a boole wala boog ñun ñu fekk ko. li muy def pour que Thiès mën ci am dara. Mhm. Thiès mën ci gagné loolu lañ gis. Mhm. macha allah alors euh, mouvement bi taxaw na comme ni nga wax euh, am na ay représentativité au au niveau de Thiès mais yaa ngi ko relancé officiellement euh, le treize mercredi prochain alors lan lañ mën a xaar ci lancement boobu donc dañ peut être xëy am na ay surprise mais lan mën a xaar en global. non pas quelque chose de grandiose parce que ñu liggéey dans l'euphorie bëgguñu ko. Mhm. liggéey aussi pour pour pour mu am spectacle wala ay coow truc comme ça loolu du suñu concept. ñun daal yéen parce que ñun Thiès Thiès wax fa dëgg yàlla xam nañ ko. Hmm. en plus ñu ngi fi bëgg perdurer. Hmm. je vais bien dire et bien même di hmm. perdurer parce que xam nañ ko. xam nañ aussi fan mooy metti xam nañ aussi lan la nit ñi soxla xam nañ aussi lan la nit ñi bëgg. donc loolu gis nañ ko. beneen bi mooy suñu problème bi ci suñu problème bi nga xam ne ça demeure entier mhm. muy la jeunesse repère lañ soxla mhm. te jàpp nañ ni mënuñu ànd ak ñoom mhm. ci ay ay discours kese mënuñu ànd ak ñoom ci ay ay ay ay ay ay ufu ci ufur yi kese parce que ñoom dañu soxla repère dañu soxla dañu soxla c'est des urgences yoo xamante ni il faut que jeunesse bi xam que ni Sénégal fii la toll foog ñu xam fan la set fan la réew mi mm-hmm. il faut ñu xam ne l'urgence du génn du daw. Mm-hmm. ça c'est du génn dem Nicaragua ou ailleurs. Mm-hmm. l'urgence nekkul ci abandonner euh, seen kër l'urgence nekkul ci abandonner say études. mais nañu xam que ni des richesses sont dans ce pays là mën nañ ko liggéey mën nañ ko loolu ñu ko def ci ay coow ay mbumbaay moo tax bu ñuy def lancement bi. dañu bëgg dañu bëgg def ko dans la sobriété. parce que ci biir weeru koor gi sax lay tombel te bëgg nañ ko def. Euh, dans la matinée. Euh, concept bi la fa bëgg a dégager. waxtaan ci ak sunu ay partenaires. Hmm. te wax foofu aussi candidat bi nga xamante ne moom la ñu fas yéene àndal ci élection présidentielle yi parce que ñun dëgg yàlla suñu plateforme plateforme politique la. Hmm. donc euh, dootuñu mënuñu aussi tamit seetaan échéance yu mel ni présidentielle. Hmm. du ci jouer partition. donc euh, xaaruñu tamit kenn ñëw ci ñun. mais dafa am lu nekk ñun naturellement loo xamante ne mooy suñu devoir. ñu war a orienter. des électeurs orienter des partenaires xamal leen que ni fii lii la ñu bëgg des le Sénégal de dem lii la bëgg Sénégal de demee concept yi nga xam ne bëgg nañ ko nag kiñ ci gis wala kiñ ci yaakaar nangam la tudd diw candidat bi la te dañ ci ànd ak mom jàppale ko. macha allah waaw euh, ci wàllu politique gis nañ li nga yëkëti ci ay xalaat lolu politique de développement la muy lo xamantene c'est très rare lolu ci ñu ngi ciy ñu ngi koy rafetlu bu baaxa baax euh, mais euh comme ni nga wax da nga anticiper sama prochaine question moy euh, on va on va vers la campagne électorale qui démarre aujourd'hui à zéro heure. alors lan moo ci nekk l'implication de la plateforme Vertu. ci élection yi nga xam ne ñu ngi ciy jëm donte ni wax nga ni peut-être di ngeen déclarer seen candidat bi ngeen jàppee tout ça mais seen implication lan lay doon fii à mais nous on est toujours actifs dans euh, ci ci ci ci dans vie politique yi à Thiès donc mouvement bi lu ko tax a juddu wax naa la ko sànq l'historique mooy que ni ñun dañu nekkoon dans la mouvance présidentielle ànd mm-hmm. ak notre euh, cher euh, Maodo Malick mbay mm-hmm. déjà en 2012 avec le président Macky Sall ci benn concept bu ñu tuddee woon gëm sa bopp mm-hmm. muy mouvement conscience citoyenne donc ñu liggéey ci ça nous a valu beaucoup de succès mais dañu dem avec beaucoup plus avec des remous actuellement gis donc dem nañ fay échéance au niveau local et au niveau national mais dans le no euh, ñu dem ba encre dugg ci biir Sahel mouvement bi dugg biir biir biir biir APR donc ça c'est assez récent mm-hmm. mais donc ñu dem aussi ci après le départ de Macky ñu dem ci investiture yi mm-hmm. on a vu que le candidat euh, Maodo était un peu en retrait mm-hmm. donc par rapport ak situation bi donc ñu ñu nangul ko ko parce que mm-hmm. moom dafa nekk ci euh, yeneen yëngu-yëngu. Mm-hmm. donc loolu permettre ko muy doon juge et partie. Mm-hmm. parce que bu nekkee ci médiation rek tu es dans tu dois gérer l'équilibre. Absolument. donc on lui concède ça. Mm. te loolu aussi liggéeyal dëkk bi la liggéeyal Sénégal liggéeyal Afrique la. parce que mm. bu jàmm amul li ñu bëgg yëpp mënta nekk. tout moom choisir na dox ci loolu donc. Mm. loolu aussi ñu nangul ko ko. nangul ko ko mais comme flambeau la. Hmm. suñu devoir mooy ñu continuer liggéey bi loon bi mu doon def sur le plan politique. donc moom aussi muy sunu mag. di hmm. sunu xarit di sunu di sunu royukaay. Hmm. ci wàllu politique parce que aussi chez moom on a a beaucoup après avec lui. donc politique bi autre façon bi ñu koy defee donc man dama koy tooñ sax naan ko xëy na gars yi bees yi nga gis moom moom mënut a comprendre parce que saaga yeeg kii daa xew léegi daa daa xaw a bari ci. ci landerneau bi. xëy na moo tax ñu mel ni ñoom mën ñu jël jël jël tuuti un petit peu di ko nekk en retrait. mais on a le flambeau. ñu bëgg ko relancer ci mouvement vertu. ànd ceeg ànd ceeg Thiessois et Thiessois yi nga xam ne doon nañ liggéey ak moom. di liggéey ak ñun. donc pour continuer dans la mouvance parce que ñun le président Macky Sall bi bi doon euh, jàpp nañ ni. am na lu mu fi bàyyi. am na aussi orientation yu mu joxe. Mm. am na aussi tam fu mu jëmee réew mi c'est à l'horizon deux mille trente cinq. donc war nañ ci mën a war nañ mën a des dans le concept liggéey ci loo xamante ne. Mm-hmm. Thiès du ci nekk aaraat loolu daal mooy sunu sunu xalaat dans ce te dinañ ci am taxawaay bu mat sëkk nag. ci mm-hmm. élection yi parce que dinañ déclarer candidat bi nga moom la ñuy àndal. Mm-hmm. incha allah ce mercredi là. buñ ci jógee lancer les activités de la plateforme. nekk sur le terrain parce que on en plein dinañu fekk en pleine campagne. Mhm. ñu nekk sur le terrain parce que loolu miin nañ ko. wax ak Thiessoises et Thiessois yi nga xamante ne ñu ngi fi. les mhm. groupements de jeunes de femmes les ASC les yi nga xam ne ñu ngi fi. di liggéey activement. Mhm. surtout les femmes de développement yi nga xam ne ñoom dans le secteur social. surtout. ñu waxtaan si ak ñoom xamal leen que ni Sénégal kat urgence yi du lii. urgence du lii quoi. voilà alors euh, président euh, dafa am loo xamante ne euh, da nga wax mooy campagne bi ñu mm-hmm. day nekk en plein ramadan. Mm-hmm. alors euh, c'est est inédit hein, ñu ñëw ci élection yoo xamante dañuy battre campagne ci biir koor gi. Mm-hmm. nan nga imaginer campagne boobu nga xamante ne sénégalais yi dañu war a woor war a di topp li nga xam mooy caravane yi. war a di dem ci activité de mobilisation sociale yi. ak yu ni mel war a sax voté ci biir koor gi. est ce que yaakaar nga ni les les populations vont suivre. Euh, li nga xam mooy campagne ak élection yi. Hmm. waaw loolu c'est inédit parce que hmm. historiquement je me rappelle pas que les situation bu mel noonu am ici au Sénégal. Hmm. mais je je dis bien que ni ñun bon xam nga et puis tamit république laïque lañ nekk ah. absolument parce que buñ ko defoon le 25 février bi passé day fekk suñu mbokk yi. nekk ci carême donc euh, ñun aussi. on est majoritaire dans ce pays les musulmans mais je pense bien que ni war nañ mën a bàyyi xel lool hmm. donc loolu et jàpp ma ni obstacle la parce que euh, diine la situation bu ne la lay fekk des fois dina la fekk ci activité yoo xamante ne mooy gën a métti sax campagne te du tee da ngay da ngay woor da liggéey ñu ñaan yàlla rek comme campagne bi bariwul sax dou jours lay doon ci premières heures ci weeru koor lay nekk aussi. Hmm. donc yërmande gi wàcc. Hmm. nit ñi dal dem ci campagne. parce que ñi mën a toog toog ñu fekk si leen ñi waral dem liggéey dem ci nit dem liggéey. ñi mhm. mën a mu bañ a am xeex bañ am xuloo parce que nag candidats yi bari nañ. Mhm. donc dix-neuf candidats du ñàkk ay caravane yuy dajee du ñàkk ay candidats yuy daje donc kenn ku ci ne tam bëgg nga def lu tour du Sénégal en moins de deux semaines. Mhm. du yomb donc yooyu yëpp ñu sóor ko. presse bi tamit. am si ñu xam ñoom it am nañ ci rôle bu ñu war a liggéey. bu mat sëkk parce que fukki koor yi fukki fan yi njëkk yi sax ci weeru koor dañ naan yërmande rek la mhm. donc ñoom it ñu xool am na loo xamante ne jarul vulgariser jarul mhm. wane parce que mhm. bu tàkkee wala coow am doo xam fu muy jëm doo donc yéen xam ngeen ci dara sax parce que chaque fois ñu leen di verbalement même physiquement sax des fois votre collègue may mën a dóor fay ñu ko agressé donc yooyu yëpp daal ñu teg ko ci suuf kenn bu bu jouru vote jotee buñ julee fajar dem ci urne yi hmm. dem ci bureau de vote yi ku ne rek xool ki nga bëgg a voté nga tànn ko hmm. Hmm. loolu sénégalais bu de ko ñu dal daal yàlla defal ñu élection yu apaisé yu am jàmm ki war a gañe gañe ñu continuer liggéey bi nga xam ne Sénégal le président Macky Sall bàyyi woon na ko fi absolument defe ni loolu moom bu amee jàmm rek lay lay doon euh, xëy voté ci jàmm parce que defe naa loolu ñëpp di ñaan euh, mais euh, da ngeen a nekk Thiès la plateforme Vertu yéen a ngi Thiès di liggéey mais euh, président Assane bu ma xoolee Thiès ci historiquement parlant dañ ko est Thiès ville de refus. Mhm. Euh, une ville vraiment d'opposition. Euh, te loolu defe naa yàggee na ko te yéen ñi nga xamante ne sax milité nga au sein de l'APR et tout ça ak activité nga def. def naa ni les résultats les derniers résultats dina dañ may dañ may conforté ci may wax ni que Thiès est une ville de refus alors tey le mouvement buy dugg si ndax jàngat na loolu yëpp par rapport à ça ak nan la mën a def pour convaincre les populations et les acquérir à à sa cause. Mhm. waa loolu jafewul parce que euh, ñun dañuy doog a judd. Mhm. mouvement bi dafay doog a judd mais suñu taxawaay yàgg na ci dëkk bi suñu taxawaay ci wàllu politique. Mhm. ci wàllu sport ci wàllu social ci wàllu développement. Mhm. suñu taxawaay yàgg na ci dëkk bi. loolu nag yàlla dimbali lañ ci am nañ capital sympathie. donc te jàpp ñu ne ñun li ñu gis ak li ñu bëgg wute na ak ñooñu ak ñooñu seen bëgg-bëgg. parce que li ñu bëgg rek mooy Sénégal dox. li ñu bëgg mooy Sénégal avancé. Mm-hmm. li ñu bëgg mooy continuité am. parce que moi je de dis des fois que ni l' élection présidentielle bi présidentielle bi ñu jëm. Mm-hmm. Euh, ci ñun ci ñun mouvement wu vertu commence euh, référendum la. Mm-hmm. c'est-à-dire c'est un oui ou un non cest à ñan ñoo bëgg continuité ñan ñoo bëgg rupture. absolument donc ñi bëgg rupture sax ils disent rupture dans continuité dans la rupture parce que bëgg nañu ñu changer certaines thèmes. absolument cette li fi Macky Sall def yëpp pari na mais tout tout n'est pas rose. Mm-hmm. donc am na loo xamante ne mën nañ ko rectifier mais li ñu li ñu gëm ñun. Mm-hmm. mooy que ni on votera oui. Mm-hmm. donc ñun continuité lañ bëgg. dañu bëgg que Sénégal raay yi ñu ko tegoon mu continuer. parce que ni ma koy jàngatee rek mooy que ni. Euh, malade la buy faju mhm. Sénégal malade la buy faju donc am na fuy metti ba tey mhm. mais mu ngi ci traitement te mhm. gis nañ ni dafa sooxee woon dafa sëggoon mais léegi dafa doon dox dafa doon soxee benn tànk mais léegi mu ngi dox ak ñaari tànk ñu gisoon li da dox rek mënul woon daw mais Sénégal léegi mu ngi waaxu donc mën na daw ci kanam tuuti donc li ma gëm mooy nañu def que nañ def symbiose def synergie tous ces efforts qui sa font ici pour que continuité mën a am à Thiès bari na c'est le moment de saluer la synergie des mouvements nga xam ne ñu ngi nekk Thiès. Mhm. li ñuy liggéey am na solo trop. am na solo trop donc c'est des efforts yoo xamante ne gis nañ ni Thiès cette mhm. fois parce que. Mhm. Euh, ville rebelle bi ville rebelle bi je me dis bien une chose loolu yàgg nañ ko wax ville de refuge c'est c'est très important. c'est très important que nit parce que loolu dina la mën a garder loo certaines te loolu ñu affecté Thiès aussi ñun dañ ci am fierté sax. parce que c'est sûr que ni kenn mënul jaar kenn kenn mënul ñëw rek loo ñu li nga bëgg rek def sa yoon et puis bu buñ la dénkee dañ lay contrôler bon c'est ça sa nature donc ville de refuge bi dama ci jàpp ni ñu ngi ci euh, Thiès mhm. am na lu ci gis comme résultat mhm. am na lu ci loo xam ne regret la aussi exact xam ne Thiès def nañ ko mais c'est ça ay regret la jur donc il va falloir ñu gérer équilibre boobu xool xam que ni Sénégal gii fii la tegu tey te mën na dem fële ëllëg. et puis ñu jël discours bi baax. ñu jox ko xale yi. Mm. Mm. parce que parce que mooy li wóor quoi. absolument alors bañ euh, naxante. alors président euh, bu ñu naxantewul. bu ñu naxantewul dañuy wax ni politique programme la. Mm-hmm. politique programme la alors yéen euh, ban programme ngeen di proposer aux femmes et aux jeunes. Mm. toujours dans la veine de cette question là bu ñu mu di wax ban programme ngeen di poser et proposer jeunes et femmes pour mën leen a vraiment jàppale ngir vraiment condition de vie yi gën a mën a ñoŋ. donc bu dee di concept euh, mouvement bi mooy li ma la expliqué sànq mais bu dee ci élection yi ñu jëm. Hmm. programme bi ñuy waxtaanee ak hmm. bi ñuy teg mooy programme bi nga xamante ne. Hmm. mu ngi mu ngi méngóog suñu candidat. moom la proposé Sénégalais yi boobu lañuy ñuy jël vulgariser ko. moom la ñuy dugal dans le quartiers. moom la ñuy dugal dans les maisons. mais ndax mën nañ jàpp ni seen candidat waxtaan ngeen ba déggoo ci ay concept yu ba yu wóor fi ñu toll nii. waaw waaw mais xam nga rencontre la. xam nga rencontre la ay nit bu ñu bokkee gis-gis. Hmm. wala ñu bokk bëgg-bëgg dañuy daje. tout à fait ah donc rencontre la donc symbiose symbiose la additif la donc ñu hmm. boole ko pour pour cet horizon deux mille trente cinq bi nga xam ne président Macky Sall moom la fi bàyyi. Hmm. moom la ñu legee. dañu war fa yóbbu sénégalais parce que am nañ ci nag satisfaction bu rëy rëy rëy. waaw alors euh, beneen question boo xamante ne war nañ ci waxtaan mooy euh, la crise institutionnelle bi nga xam ne am na Sénégal. Euh, ngay président de mouvement. Euh, yëngu ci politique lu yàgg am ci mm. xalaat mm. Mm. alors gis nañu un bras de fer entre le conseil constitutionnel et l'exécutif ñu gis ni à chaque fois euh, dafa am euh, xëccoo bu am ci date bi dem nañ ba ci biir ki nga xamante ne jàppoon le 31 jàpp le 24 et finalement la date du 24 a été retenue mais crise institutionnelle bi nga xam ne am na ndax xëccoo boobu noonu yow nan koy jàngatee donc est-ce que crise là d'abord c'est ça c'est ça la c'est ça ma question est-ce que crise là en tout cas gis nañu xëccoo entre trois les trois pouvoirs ça peut être dama la cité ñaar waaw moo tax may wax est-ce que xëccoo là mhm. parce que Macky Sall euh, le président Macky Sall je crois que dafa un kirolo. Mhm. il a soumis ses idéaux au conseil constitutionnel. donc en tant que insti en tant que euh, institution. Mhm. di leen yoon may aussi ñu def ko. dire au président que ni lii la la yoon may lii yoon mayu la mhm. moo war a am lii warta am donc loolu ça gère l'équilibre ça gère l'équilibre te noonu la état di fonctionner mhm. et puis day wane que Sénégal état de droit la mhm. réewu yoon la parce que on se rappelle de deux mille avant deux mille dix-sept avant le référendum Macky Sall avait fait la même chose il avait consulté le conseil constitutionnel laaj leen avis ñu jox mu jël Abiba parce que am na lu mu bëggoon. Mhm. li mu bëggoon mooy def cinq ans. ñu mhm. ko loolu mënul nekk lii moo mën nekk. donc mu ñëw mu ñëw def ko parce que gars dañuy wax rek. Mhm. mais Sénégal réew démocratie la. réew réew te wane nañ ko encore une fois. te conseil constitutionnel dafa jël date proposé ko moom it. mais ça revenait au président Macky Sall de choisir une date. mais cette date là avant. avant avant la fin de son mandat. am ñuy wax ni sax euh, conseil constitutionnel amul droit choisir li mu war def moy rek. mais mais moom ne proposer nga comme comme l'assemblée parce que. Mm-hmm. parce que les institutions là il faut ñu xam ni. Mm-hmm. équilibre bobu ñu gérer moy ni la bonne marche du pays. parce que qui qui les lay voté ay loi l'assemblée. Mm-hmm. di promulguer. Euh, nu mu di président di di di di di gérer l'exécutif ñoom ñu gérer le pouvoir euh, pouvoir judiciaire c'est-à-dire lolu lolu lolu lu gars yi mënti wax. tey wane na encore une fois ak ni Sénégal am na fu mu toll ci justice am na fu mu toll ci yoon c'est une grande très grande démocratie mm-hmm. et on salue le courage de Macky Sall du président Macky sal mm-hmm. parce que taxawaay bi mu am boo amoon beneen rek réew mu dugg ci guuta bu amoon beneen rek réew dugg ci guuta te lii mu def nii wala salu ñu koy saluer bu baax a baax mm-hmm. donc loolu man bon personnellement man gisuma crise am na gisuma ko ci parce que kenn ko ci ne joué nga sa rôle et lii la jur comme résultat exactement alors euh, mesdames et messieurs ñu fàttali leen ni ñu ngi toog ak ki nga xamante ne moom la ñuy wax Assane Gueye monsieur Assane Gueye président euh, donc euh, de la plateforme Vertu muy dooleel doomu dëkk bi mais également muy entrepreneur tey nag ñu ngi seek laaj ak tontu mais président sans transition hein, on va parler de d'un fléau bu soxal dëkk bi yëpp. Mm-hmm. vous êtes président d'un mouvement comme ni ma faral di ko fàttali bu ñu waxee ci wàllu immigration irrégulière. ou mm-hmm. immigration clandestine. Mm-hmm. jege nga jeunes yi. di waxtaan ak ñoo alors tay ce mouvement bi nga xamante plateforme bi ngay wara lancer ni ndax xalaat ngeen ci euh, loolu noonu pour mën cee sekk ay jéego ba dolliwaat es delluwaat espoir ci ndaw ñi. ba ñu mën a toog ci dëkk bi liggéey. parce que je rappelle que entrepreneur nga. kon mhm. war nañ mën a waxtaanee lu mel noonu. ngir mën a peut être ay piste yu ndaw yi mën a xalaatee ni war nañ mën a tekkee ci biir dëkk bi. waaw mouvement bi sax ci biir mouvement bi sax am na ñoo xamante ne duggoon nañ ci gaal yi dem. ok kon nañ ci donc. ma koy nuyu sama xalifa hmm. sama jarbaat am na ñeneen ñu ci àndaloon hmm. donc demoon nañ ñoom dikk aussi waxtaan nañ ak man parce que hmm. loolu ñuy dem bu ñuy dem duñu waxtaan tout à donc phénomène boobu am Sénégal dafa doy waar dafa doy waar aventure nag yàgg na fi parce que l'homme moom la recherche du meilleur nit chaque fois mu ngi xalaat ni bu demee tel bërëb xëy na mu yokk fa bu xewee te bu demee tel bërëb xëy na tey lu mu doon wut mu am ko fa donc quel que soit les risques les gens essayeront toujours de partir vers l'Eldorado xool vers ailleurs dem dal dem ailleurs parce que làmb nañ fi doxul ñu dem xooli fenen mais demine bi demine bi ko aussi benen bi tamit fi nga jëm fan la ak fi nga bàyyi fan la il faut ñu xam que ni Sénégal li wax sank rek discours bi il faut ñu wax ko xale deug parce que dama gis ni dañ leen def def leen chera kanu di leen utiliser di leen di leen tempaniser leen wax di leen fe perdloo espoir di leen xamloo ko ni fii mënu leen fee tekke alors que c'est pas possible c'est un homme tuddati du moins loolu ñu leen wax c'est pas vrai parce que ñoom ñi leen koy wax fii lañ tekkee mm-hmm. puis mënoo ne ci réew moo xamante ne ki ko jiite il s'appelle le président Macky Sall doomu di doomu baado la euh, vous m'excusez du terme mm-hmm. maanaam jaar ci ay nekkoon ci ay incertitude mm-hmm. yu yu yu doy waar am abnégation détermination ak gëm-gëm yóbbu ko ci Sénégal lu dem boo xamante ne c' était pas évident pour nga boo amee bac nga am orientation. c' était pas évident que boo amee orientation nga mën a nga mën a am foo nekk. Hmm. c' était pas évident que mën a nga mën a liggéey boo amee boo boo amee diplôme. Hmm. Sénégal lu dem Sénégal boo xam ne ñun dund nañ ko plus hmm. récemment. donc ñu indil leen Macky Sall ak li fi indi yëpp ngeen bëgg a teg ci nopp xale yi leen génn loo bi. xale yi ñoom ñoo war a moom dëkk ñoo war a téye bi ëllëg. exactement buñ fi jógee fan lañ jëm. tout à fan la réew mi jëm buñ fi jógee. kon jàpp nga ni euh, benn rek ci euh, li nga li li nga li nga teg la caricature mooy que buñ ku ne mën nañ xool jeunes yi mën nañ xool ni ci ci exemple président Macky Sall. def na doy comme exemple sax moi je vais parce que Macky Sall rek doy na comme exemple pour parce que amul woon lu lu amul woon certitude chez lui. Hmm. papaam yorul yaayam yorul ñëpp ay pauvre lañ. Hmm. bëggoon dimbali papaam dimbali yaayam. dimbali ay mbokkam loolu yëpp war ko muy góorgóorlu di liggéey. te il est devenu président de fan la jàngee. Mm-hmm. fan la liggéey. Mm-hmm. il a servi ce pays là. à tous les gestions ba yegg ci kaw. te loolu yëpp fii la ko defee. Mm-hmm. te bu doon dañuy xool Sénégal doomu ko am doomu ko ñàkk duñ ko jël fenn muy liggéey. bu loolu xool aussi que ni am na capacité am na capacité kese yam ci mais y a rien derrière lui duñ ko jël. mais dafa jaar fi mu jaar am détermination. am gëm-gëm am liggéey. Mm-hmm. réussir dans ce pays. Mm-hmm. mais li booy am léegi ci réew mm-hmm. mais ñun amuñu ko woon waxumala ak ñoom Macky Sall. exactement le Sénégal d'aujourd'hui la mais bu ñu demee bañ la booy dañu bu ñu dem Nicaragua dañuy dajale cinq à sept millions. réew moo mën a amee cinq million mais mën nga fa am vingt mën nga fa am quarante il faut mën nga fa am cinquante millions mën nga fa liggéey parce que da nga liggéey mënoo toog di liggéey ba am cinq millions nga da ngay dem da ngay dem Nicaragua wala da ngay dem feneen yaa xam réew moo mën a liggéey sept millions mën nga fa liggéey leneen beneen bi wax naa ko fi des activistes. Hmm. Sénégal mel na nii Sénégal mel na ne ñu xëy la lendemain xoolee waa ñu dem dans les plateformes yu mel ni DER ñu def am fay financement toog di liggéey. Hmm. dans ce pays là. Hmm. te ils disent aux gens ils encouragent ce que font les pour booy dem alors que ñoom ñu reste pour travail. te bu booy yi ñëwee ñoom fii kër yi fi nekk ñoom ñoo koy tabax. oto yi fi nekk ñoom ñoo koy dawal. donc ñoom tekkee nañu fii mais dañuy jël dañuy joxe xale yi la discours bu baaxul pour ñu génn dëkk bi te loolu loolu warul am. il faut booy xam ni bu ñuy jàngee liggéey bu la état jëlul sax tu as capacité ak la possibilité de bénéficier des financement dans ce pays là nga liggéey ñu ngi fi. foofu laa doon dem mooy entrepreneuriat la mooy nekk rôle entrepreneuriat parce que yow euh, def naa ni ci entrepreneuriat ngay jox. Euh, on voit que peut-être euh, yagi Tissayon, ci sa yoon. Mhm. lan ci entrepreneuriat pour juguler ce problème là euh, de l'immigration clandestine. non xam nga l'entrepreneuriat aujourd'hui y yegg ci mhm. module bi fa yegg ci surtout employer sax da fa mhm. donc même avec les bengal moyens waxuñu loolu sax ñun capacité ñu am peut-être parce que ñun on va pas s'ériger en exemple parce que exemple yi bari nañ dans ce pays là. Anta Babacar Ngom exemple pour jigéen parce que c'est une réussite. Absolument. Tu me diras que ni papaam lii papaam la mais en tout cas réussite la. réussite sociale bien sûr. réussite sociale mm-hmm. liguer les la bu mu gëm te fii la ko donc mu ngi mu ngi émerger. Mm-hmm. xale yi ay repères bari nañ. Mm-hmm. cité naa la perte. bari nañ ci Sénégal. donc nañu ériger yoy en exemple nous xam que ni état limu limu war moy. Liko war moy fexe ba xalé mëna mën a jàng fexe ba xalé mëna am métier. fexe ba xalé mëna am une réinsertion et loolu il est dans ça parce que man. Euh, euh, anamoo bi Malick Mbaye jiite woon gis nañ politique bi ñu taxoon politique de jeunesse bi pour la réinsertion bi nag gis nañ formation yi gis nañ financement yi donc oh, Macky Sall am na fu mu teg réew des financements dans l'urgence aussi parce que bu xale yi paree ci seen formation ba am métier mën na dem ci tel ci tel département ñu structure ñu financer leen mm-hmm. ba pare encadrer leen donc yooyu c'est des possibilité ki n'ont pas qui ne qui existé wul woon te am na fi mm-hmm. beneen bi mooy ci côté njàng mais ñaata université la Macky Sall toll ci réew ñaar la fekkoon ñaata lañ tool léegi les lycées les écoles ñaata lañ toll donc sàkku xam-xam nekk ci dans la recherche yomb na ci réew mi mm-hmm. se verser nag peut-être dans l'entrepreneuriat il faut des initiatives personnelles mm-hmm. en plus nga am nga am nga am nga il faut des initiatives personnelles en plus nga am aussi base bu solide ça donc lool nak ça c'est de l'abnégation de beaucoup de détermination mais il faut nga il faut il faut il faut ñu xam que ni c'est des choses qui sont désormais possibles dans ce pays là mm-hmm. ils sont désormais possibles au Sénégal et puis ñu xam le Sénégal est sur les rails mm-hmm. les rails du développement machallah allah Euh, voilà euh, avant ñu lay le président euh, am lo xamantene il faut ñu waxtaanee ko moy ñu dem ci ay élections yo xamantene élection élections yu doy war la. Mm-hmm. Euh, titangé gi bari na. Euh, ak li fi jaar alors ban message ngay lancé ñi nga xamante ne mooy la jeunesse tous les acteurs yi war a impliqué wu ci euh, élection yi jëm campagne bi comme élection yi ngir ñu am buñ ci génne des élections libres calme apaisé et transparente. ba bu ñu xëyee ñu mën a def une passation de pouvoir lépp nekk si jàmm ban message la ci la plateforme verte di lancé. waaw bi ci jiitu mooy message du jàmm. Mhm. parce que ci jàmm rek lépp xaj. jàmm amul élection sax mënut am. Mhm. beneen mm. bi aussi ñu xam que ni mm. ñoom ñooy ndaw yi ñooy ndaw yi réew mi ñoo war a yor réew mi ëllëg. absolument quel que soit seen choix wala liñ bëgg a def ñu xam ni ci jàmm rek lañ ko a def. exact waruñu ko def ci xaste du saaga du attaqué bu leen kenn demloo ci kër jàmbur yi. Mm. bu leen kenn defloo naka su dul noonu. parce que les politiques après ils se retrouvent. tout à fait la loi d'amnistie la da leen koy wan yow yi combien de morts. tout ñoo ci dee ñaata jeunes ñoo ci ñàkk seen liggéey. ñaata jeunes ñoo ñàkk seen ay cër. ñaata jeunes ñoo ci am ay ay laago am ay problème seen faaraay wala leen gérer tey mm-hmm. yoo xam ne ñu ay problème bopp sax lañ ci jëlee donc faut pas répondre à cet appel là appel de la violence parce que ñi ko doon ko woote tey sont dans les pour am jàmm seen njaboot am ko pour ñu mën a génn daa nekk ci jàmm te bari ki dem ma dama leen koy waxa ah. mm-hmm. chaque jour buñu laan euh, du mois chaque session à l' assemblée mu waaye Guy Marius Sagna gàddu kees gi mm-hmm. ëpp leen gàddu mais keroog bi ñu woowee loi d'amnistie bi gàddu ko kàddu ko parce que ñoom am na lu ñu bëgg xam nañ ni ñuy def na am ci donc bu ñu utiliser benn ndaw hmm. élection jarul jarul xuloo jarul xeex yàlla sunu borom def ci dugal loxoom d'autant plus que ni sax hmm. da ko dugal ci ci weeru koor bi hmm. ren ñu war a xam ni ñun am na su borom xëy na am na lu ñu nam lu mu namal donc bu ñu répondre à ça kenn ku ci ne am nga droit ànd ak ku la neex candidat yi kenn ku ne nga voter ku la neex mais nañu xam li ñu bëgg rek xam ni réew ñun ñëpp ñoo ko bokk nous sommes tous des Sénégalais euh, xam ni ñoo ko bokk euh, te ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko war ni ko gars yi waxee rek Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar fexe ba jàmm am ndax jàmm ci la lépp xaj ci la lépp xaj euh, balaa balay bàyyi tooñ la hmm. bu ñu du tënk li nga wax yëpp hmm. ndax mën nañ jàppale plateforme bi ci am Ba lay jàppale ko de parce qu'on peut se retrouver très vite. Mhm. Inch'Allah, Amadou Ba incha allah daal ko wax merci beaucoup mu nekkoon un plaisir de dalal euh, monsieur Assane Gueye. ko pour nga ko waxee euh, li nga présentation c'est un entrepreneur mais également le président de la plateforme Vertu. Euh, dooleel doomu dëkk bi vraiment un nekkoon vraiment plaisir ñu toog ak vous avez entendu. Euh, toutes les idées mais tous les arguments yi nga xam ne développé ko na rek ci développement ci citoyenneté mais également tech euh, donc un modèle de développement bo xamantene euh, day bâtir de nouveaux types de citoyens mais également citizenship une citoyenneté bo xamantene ne Thiès waa dañ ci gis sen bop vraiment mu que waxtan bu am solo alors monsieur Guèye on est au terme de cette entretien Elle mhm. mooy kàddu yu mujj yi xanaa nuyu sama mbokk yëpp di jox rendez-vous inshallah, mercredi ci lancement plateforme bi. Mm-hmm. ak la déclaration de presse bi nga xam nañ fa génne. Mm-hmm. suñu turu candidat bi nga xam ne moom lañ nar a ci élection présidentielle donc di wax euh, Thiessois yëpp euh, Thiessois yëpp nañu dugg ci élection yi ci jàmm. Mm-hmm. génn ci jàmm. Euh, xam rek ni jàmm. ci la lépp xaj. lu waaye wut leneen loolu jàmm. jàmm ko gën. exact nañu nañu ànd dal. nañu ànd yar. dañu ànd ak discipline. macha allah dañu sunu ay valeur macha Sénégal am na fu ñu ko teg. tout à waaw ñiy dugg ci dëkk bi nag wax katu lu bon yeeg jëfkat yi bëgg koo yàq. Mhm. xam ni Sénégal bokkul ak yeneen réew yi. Mhm. Sénégal du tàkk. de toute façon après les élections. Mhm. le beneen Séné beneen sénégalais mooy ñëw remplacer un sénégalais. Ah beneen sénégalais mooy ñëw remplacer un sénégalais donc forcément y aura la continuité. nañ ñi ñaanal ñëpp jàmm. di leen sant bu baax di leen gërëm yéen tam. Euh, amis téléspectateurs euh, ñu jaajëfal ko bu baax a baax vraiment euh, rafetlu déjà comme ni koy waxee dalal yu ñu dalal ci cadre bi di ko kontaane mais également Euh, diko ko ñaanal ah euh, comme ni ko defee ak ñëpp rek plateforme bi nga xam ni ngi koy lancé lépp ci ngëneel euh, mm. Thiessois yi mën koo jëriñoo suñu borom yàlla na ko def mu nekk pour l'intérêt exclusif des Thiessois lépp lu mu ci mëbët di ko naal pour aussi jàmmi Sénégal suñu borom def ko ngir askanu Sénégal mais fu mu ko bëgg a yóbbu également suñu borom jàppale ko mu yëg ko fa doole ko kàttanal ko mm. ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax yéen amit amit spectateur ñi ngi leen di jaajëfal ci déglu gi safa beg topp di leen jox dig daje très prochainement pour un autre numéro de l'invité de la rédaction d'ici là portez-vous bien au revoir